Euh, sunu gan professeur Idrissa Demba bah. Salam professeur. salam euh, ñu lay euh, nuyu di la dalal matin ñu yaram yow société sénégalaise de pédiatrie di congrès fu muy un sax d'ailleurs Wow, euh, jërëjëf euh, Georges mm-hmm. maa ngi am mbégte di teew si émission bu am solo. Mm-hmm. mooy euh, sensibiliser ak yee euh, congrès bi euh, tey lay commencé. Mhm. en fait commencé na sax depuis démb. mais euh, Ngor Dia Ngor Diarra ma amé donc congrès bi société sénégalaise de pédiatrie moo koy organisé. <laughs> ma fas yéene Mohamed ak Mouhamed Alioune Ba ci waxtan wi congrès bi nak walum urgence médicale surtout ci walum pédiatrie ci lolé ngeen fas gëna waxtan dañ ci ñëw ci kanam waaye wayu urgence pédiatrique fi ci Sénégal lan la ndax mën nañoo naan baax na wala baaxut. waaw sa laaj bi dafa am solo euh, parce que xam nga si wàllu paj dafa am euh, lu ñuy organisation. Mhm. donc si organisation yi am na li nga xamante ni euh, ay services yu spécialisé. Mhm. si services spécialisé yi nag am nañu urgence urgence mooy ba nga mooy fi nga xamante ni malade yi. kuy malade bu ñëw ci hôpital ku am rendez-vous ku amul rendez-vous ku am soxla ci hôpital bi mën nga fa ñëw directement donc ce qui fait que dafa nekk benn vitre benn vitrine la moom moo benn vitrine en matière de santé mmh. donc euh, ci Sénégal fii effectivement euh, urgence yi euh, souvent day poser ay problèmes surtout si wàllu xale loolu lu ko waral bari na ay facteurs hein mais lu si am solo rek ñu ngi jéem def ay organisation am nañu par exemple boo ñëwee si hôpital Albert Royer am nañu SAU mmh. mooy service d'accueil et d'urgence nga xamante ni moom liggéeyam mooy lépp cas urgent bu ñëw dañ koy jël rapidement en charge. professeur heure bii nii ban problème ngeen jànkoon teg ci wàllu urgence yi yan mooy problème principaux yi c'est quoi. Euh, en fait euh, dinaa dinaa fa ñëw boo ci waxee problème principaux yi mooy comme ni ma lay expliquer par rapport ak surtout wàllu pédiatrique mooy demande bi moom mooy forte boo ñëwee par exemple ci hôpital d'enfants Albert Royer en moyenne. lu mu tuuti tuuti tuuti dinañ am 200 ba 300 donc hmm. mooy ñaari téeméer ba ñetti téeméer consultation on nga xamante service de consultation. ñaata agent nous prendre en charge. Euh, le nombre d'agents exacts exact prennent en charge mais nous avons une équipe multidisciplinaire Nous avons le professeur Tchongan, Alioune est mon euh, chef de service euh, des urgences et interne interne des fois 10 médecins toute la journée en charge en plus de ça y a des infirmières am na ay aides infirmières y a aussi euh, un service euh, euh, de une salle de déchocage donc am na ratio bi jàpp jàpp nga ni ratio bi baax na mënuma la wax ni ratio bi baax mais c'est surtout par rapport à la forte demande bi donc urgence mënoo prévoit prévoir léegi-léegi am accident les les mën nga am crise mën nga xam xale yi nga xamante ni ñëw si hôpital parce que dafa am jafe-jafe nooy day soxla ñu ñu jël ko en charge maintenant si nit ñi lu ñu war a jàppee mooy am nañu lu ñuy woowe système de triage. Mm. c' est pas parce que nit ki ñëw nga hôpital rek nga nekk sama sama doom dafa feebar urgence la rek mu nekk urgent. médecin bi mooy déterminer urgence. waaw donc médecin ak surtout infirmier yi. am na mm. infirmier yi nga xamante ni ci am na salle de triage ku ñëw bu jàllee si accueil bu ñëwee salle de triage bi dañ lay évaluer xool est-ce que les cas urgents là wala du cas urgent wala est-ce que cas prioritaire là, ce qui fait que malade bu yegsee rek dañ lay gàttandu classé là, ñu wax la ki cas urgent la su fekkee cas urgent la rapidement dañ lay yóbbu ci médecin yi nga xamante ni loolu mooy seen liggéey jox la ticket rouge bu fekkee ni cas prioritaire la mooy euh, cas bi nga xamante ni nekkul urgent mais euh, prioritaire la loolu ñu jox la ticket euh, jaune bu fekkee ni tamit cas non urgent ñu jox la ticket wu vert donc ce qui fait que pour nous wax urgence le médecin bi moo déterminer maintenant aussi amna ñi nga xamanteni pompier yi mën nañ indi malade do ñu xamni urgence dañ koy jël en charge. Mhm. wala mu jóge ci benn structure de référence nga jaar ci benn hôpital ñu bindal le kayit n'est-ce pas nga accompagné par une ambulance bu ñëwee lool dañuy xamni cas urgence dañ lay jël en charge. manam mhm. ñu ngi fexé ba satisfaire population sur la prise en charge de ces urgences et aussi tamit il faut que nous xamné aussi c'est pas parce que nous ki ñoo nga ci hôpital rek sama urgent tout de suite. mais professeur souvent Albert Royer Amna ay panne euh, souvent euh, Radio bi da ngay ñëw santé problème là. les gens sont obligés ñu référer leen euh, ci fan lolu problème bu mag la pour les enfants aussi ak seen yaay yi xam nga particularité euh, hôpital Albert Royer dafa nekk hôpital bi nga xamante ni euh, yàgg na donc depuis presque 1980 1982 ici am na réputation ak aussi am na yeneen hôpitaux un hôpital d' enfant pour Diamniadio ak yeneen service de pédiatrie maintenant surtout Dakar ku su doom feebar rek en général da ngay gaaw noo da ngay gaawantu ñëw hôpital Albert Royer mais nañu xam ni aussi am na yeneen service de pédiatrie ñu mel ni euh, Roi Baudouin ñu mel ni hôpital pikin ñu ngi fa ñu mel ni hôpital principal hôpital de Dantec hôpital Abass Ndao yooyu yëpp ay service la nga xamante ni am nañu ay euh, pédiat pédia am na ni service de pédiatrie mais demande bi moo forte comme ni ma la waxee et puis ñun tamit lu ñuy euh, exigence bu ñu ma bu ñu bu ñuy bu ñu am mooy képp nga xamante ni ñëw na si biir hôpital bi mu am place mu ñàkk place ak lu mënti demee kenn du la renvoyer dañ lay jël en charge maintenant nag bu fekkee dafa soxla nga def rajo wala dafa soxla nga def du euh, mu woowee euh, ay analyse ñu def ko sur place maintenant effectivement comme ni nga waxee radiologie benn service radiologie la ñu am hum. mais actuellement ñu ngi euh, am na benn service bu ñu construit spécifiquement pour que espace bi ñu gën ko yaatal am plus de table ce qui fait que hôpital fan su fekkee ni dañu nekk en maintenance hôpital Fan, Albert Royer si biir hôpital Fan. la nekk c'est normal que yenn malade ñuy wax leen nañu dem defi rajo si euh, biir hôpital Fan pour que ñëw ñu jël leen en charge. ci wàllum mortalité pédiatrique chiffres yi dañoo jéggi dayoo en tout cas euh, ci li nga xamante ni yéen xam ngeen ko quel est le problème. donc dafa am si wàllu santé parce que plus de vingt mille euh, si je ne me trompe yenn at yi. waaw dafa am si wàllu santé lu ñu woowee indicateur. ay indicateurs yu am solo si indicateurs yi par exemple nga jël nu ñu woowee mortalité maternelle donc indicateur bu am solo nga jël mortalité néonatale mooy liir yi nga xam ne ñuy faatu mhm. loolu mortalité euh, indicateur bu am solo la ak aussi nga jël nu ñu wooy mortalité infanto juvénile indicateur bu am solo maintenant si aduna bi yëpp effectivement boo jëlee xale yi nga xamante ni seen at yeggagul juróomi at am na 5 millions ñuy décédé si faatu aduna bi yëpp mm. mais ñu si ëpp cas yooyu si ay dëkk ñi nga xamante ni mu ñuy wooy pays en développement subsaharienne surtout Afrique subsaharienne ak aussi yenn yenn dëkk si Asie maintenant si loolu partie bu gën a am solo si mortalité bi mooy à peu près 2,4 millions mooy nouveau-né moy mooy ak prématurité moy hmm. ñi nga xam ne dañoo donc ñoy dañuy gëna soxla encore yenn existence de soins maintenant au Sénégal effectivement mortalité infantile euh, infanto-juvénile bi mo ngi à à 37 pour 1000 naissances mais vous jëlé au niveau 10 ans en arrière par hmm. exemple en 2000 en 2005 on était à 121 pour 1000 naissances vivantes donc ça veut dire que mortalité bi divisée divisé nañ ko au moins 4 fois donc on euh, ne na bu baax te tamit au niveau euh, des des autres pays OMS bo xoolee des au niveau au niveau international on est à 66 pour 1900. mais on mais c' est des décès. yi ne mën pas koo c'est ay décès évitables yenn waaw en fait bu ñu waxee euh, loolu c' quelque chose bi nga xamante dafa daf ñuy mhm. mais dans les zones par exemple qui Kédougou Kolda wala yenn peut-être une partie du nord du pays ça subsiste encore non cette mortalité effectivement donc un objectif moy ñu fexe ba yegg ci wax objectif du développement durable n'est-ce pas moy une mortalité infantile juvénile ak mortalité néonatale donc ce qui fait que chaque année nous tok avec euh, en tout cas surtout au niveau du ministère dañuy fixer ay objectifs nous ñu wara atteindre donc ce qui fait que ñun sax société sénégalaise de pédiatrie wàllu prise en charge urgence yi wàllu prise en charge euh, nouveau-né yi dañuy impliquer donc suñu rôle mooy lépp li nga xamante ni stratégie mooy pexe ministère de la santé bu lal pour réduire mortalité bi nañ ci premièrement par exemple nga xool si wàllu prise en charge néonatale dañuy def lu nga xamante ni soins obstétricaux néonatal d'urgence donc pour que ñu tàggat poste de santé ngay wax centre de santé du bëpp Sénégal. Mhm. dañ ciy participer dem dañuy dem fii ba Fongolemi dem fii ba Médina Yero Fula donc pour que ñu tàggat leen pour que à chaque fois bu amee naissance nag la ñu mën a jël pour ñu mën jël bi en charge Nous mën faire def soins d'urgence. parce que problème est mooy il y a pas de pédiatre dans ces zones là. non en termes de de couverture pédiatrique Sénégal def nañu avancé parce que boo xoolee bépp région yi yëpp am nay pédiatre léegi et puis sax hôpitaux régionaux yépp ak yenn hôpitaux yi sax yenn niveau niveau deux mm, am nañ ay pédiatres te li ñuy wax actuellement ñu ngi dem sax di jéem doubler postes donc en termes de formation chaque année en tout cas faculté médecine bu Dakar ak aussi bu UFR bu parce que léegi dafa am ñaari DS de spécialisation maa ngi de passage professeur Ndeye Ramatoulaye Diagne mooy présidente formons euh, dañuy former chaque année au moins 30 pédiatres dañuy génn chaque année donc ça veut dire que Gabi rapidement a koy combler chaque région a des pédiatre en même temps aussi nous ngi doubler dans certaines régions euh, dans certaines structures hospitalières. Mmh. donc côté de la formation nous ngi faire former le maximum de pédiatres Et si xoolee sax les même demandes en termes de formation nous ñuy am euh, def avec euh, en tout cas professeur Ousmane Diaye plus équipe bi yëpp. Mmh. fexe nañu ba rendre beaucoup plus attractif n'est-ce pas la formation en pédiatrique c'est pas évident pour former nit ñi mais les gens légui ku dossier dañuy bari demande. mais mais mais d'accord il formé mais y a des sous-branches de la pédiatrie est-ce que ñu ngi euh, dem yok seen xam-xam ci walu par exemple en en en réanimation pédiatrique oui euh, yaa ngi laal bu am solo xam nga pédiatrie dafa nek spécialité bu sensible. Mhm. bu ñuy tàggat nit ki dañ lay tagat dans toutes les facettes Moy da nga wara am compétence en prise en charge des urgences. Mhm. da nga wara am compétence en cardiologie da nga wara am compétence en néonatologie. moy mhm. jël en charge lire. bu nek prématuré donc jël en charge aussi ko am problème euh, euh diabète ko am problème drépanocytose donc il faut que ñu former la tagat la ba nga xamante ni ñun sax léegi suñu dee si mun nañ échographie cardiaque ça veut dire que xale boo amee problème cardiaque mun nañ ko. mun nañ ko détecter détecter rapidement. dès les premiers mois. dès les premiers mois la grossesse. Euh, disons mënu wax dès les premiers mois en tout cas à la naissance ñun en fait on s'occupe des personnes à partir de la naissance. ok voilà ok. Euh, avant la naissance ça surtout c'est les échos. Mmh. Euh, c'est les gynécologues yi ñoom mmh. aussi dañuy détecter. Euh, donc lu ci am solo mooy formation bi il faut que ñu capacité la de telle sorte que xale bu ñëwee ci yow nga mun ko jël en charge stabiliser ko mu nekk urgence wala mu nekk ba bañ nekk urgence pour nga mun a évaluer xale bi nga wax ko kii sur le plan respiratoire mu lu nooy bi amul amul ci benn jafe-jafe si wàllu xol bi sa sang bi nu muy circuler amul ci benn jafe-jafe ak aussi si wàllu nutrition ak si wàllu euh, neurologique pour nga mun a wax ni xale bi euh, poids normal na ak aussi développement bi normal na loolu moy objectif bi maintenant nak amna ay sous mm-hmm. spécialité sous spécialité bi tamit lool tendance la parce que dañ koy développer par exemple man si li ma nek euh, moy je fais de la pneumologie pédiatrique mm-hmm. kuy def pneumo à la kulli àlin il faut nga mun jël en charge urgence mm-hmm. professeur ak il faut aussi tamit ku jël am problème cardiaque nga mën ko jël en charge ku am problème neurologique nga mën ko jël en charge maintenant sous spécialité ñu koy développer n'est-ce pas le Sénégal ak aussi tamit dañuy accentuer pour que nous ayons am compétences pour que nous fu ñu mënta dem gérer hôpitaux yi ñu service de néonatologie ñu maladies gérer malades yi nga xamanteni dañ leen di envoyer. justement service de néonatologie yoyu gis nañ ni problème la Sénégal avec euh, tout ce qui s'est passé euh, ces dernières années euh, ren jii sa ci qui lu fa am d'ailleurs ñu ñak ci ay euh, daw itam su ma fàttewul. Linguère c'était le même problème c'est quoi lan motax euh, suñu pédiatrie yi dem ba. ak euh, ci crèche yi aussi làq c'est quoi le problème. euh, en tout cas maa ngi ma saw ñëpp ñi nga xamante ni en tout cas am nañ ci ay. décès si walu si walu accident yi ngay wax noonu mm. parce que moom lay xamal leen la xam nga médecin lu gën a métti mooy nga am malade mu décédé quelle que soit circonstance bi euh, man en tout cas ñun chaque décès bu am dañuy def lu ñuy audit ñu def staff chaque matin heure bu may wax ak yow nii à huit heures pile par exemple moo ñëwee ci hôpital d'enfants Albert Royer dañuy def benn staff mooy regrouper ñëpp pour ñu xam lan moo xew ci guddi gi lan moo xew les vingt quatre heures à l'avance ak lan moo xew ci biir hôpitaux yi ak malades yu ñu ñu discuter ci wàllu loolu maintenant effectivement c'est pas facile parce qu'en termes de moyens moyens il les la demande bi c'est pas c'est pas souvent évident mais cas yep dañ koy discuter pour tirer les leçons pour xam cas bi polio la amoon wala cas bi tuberculose wala cas bi euh, méningite wala prématuré pourquoi ak prise en charge bi ñu waxtaanee pour que ku nek à niveau et c'est sax moo waral ñuy def congrès bii nii pour que nous puissions a waxtaan si wàllu urgence maintenant comme ni nga waxee ne ay wàllu lakk-lakk hôpital c'est vrai que c'est surtout les services euh, de maintenance ou certains outils yi nga xamante ni nañ ko à jour maintenant euh, en si si côté boobu tamit il faut que comme c'est un dossier qui est très sensible qui est en matière de justice donc euh, je pense que autorités la justice est là est là-dedans ak aussi tamit ñun dañ si tirer ay leçons moy djema a suñu instrument ñuy utiliser mu nek couveuse mu nek matériel bu utiliser matériel de réanimation bi ak lampe chauffante pour que nous puissions changer Nous ñu nous euh, nu mu à norme. c'est un peu désuet euh, non je peux pas dire c'est un peu désuet xam nga technologie bi day évoluer. day technologie day avancé matériel bu génn dans deux mois dans six mois ou dans deux ans ou trois ans dafay vétuste. mais côté boobu sax beneen bu ñuy war a. mais côté boobu est-ce que dañ leen di associer yenn saay ak surutilisation bi xam nga surutilisation bi mooy demande bi moo forte boo xoolee dans nos maternités tout le temps il y a des naissances mais est-ce y y dañ leen associés, associer yenn saay processus Il y matériel des ndax Il y a des les autorités politiques et administratives qui dañuy jënd matériel euh, peut-être nga en général en général lu ñuy def euh, euh, des besoins mm-hmm. donc pour defee l'expression des besoins nga def sa spécification maintenant avons les services compétents du ministère comme Jean-Rudim, qui ont des matériels matériel qui nga xamante répondre aux normes euh, requises ici au Sénégal ou un peu partout pour ñu mun le matériel bi mais nous, nous ci am solo en tant que technicien mhm. moi, que nga nous maintenir dugg na hôpital ñu fexe ba ñu jël en charge nous xam sa jàngoor ñu jël en charge pour que nga bañ a am fa gaañu gaañu nga fa am ben pour que nga mën a euh, tranquillement à la maison mais je vous dis que lu gën a docteur moi nga am malade quelles que soient circonstances parce que décès c'est day des c'est bopp do nelaw guddi boobu da ngay hmm. xalaat est-ce que am na li nga xamante ni waroon nga ko def defuloo ko est-ce que am li nga xamante ni buñ ko changé woon euh, malade bi mën a survivre ak aussi euh, donc yooyu yëpp c'est les personnels santé très conscients par rapport par rapport à ça. mortalité pédiatrique bi ñu doon wax lan moo koy gën di waral. donc boo xoolee hmm. wàllu mortalité surtout par exemple boo xoolee hôpital euh, d'enfants Albert Royer man maa ngi fa depuis 2004 2006 n'est-ce pas mortalité bi wàññeeku na bu baax boo xoolee actuellement on est à 6,3 pour taux de décès alors que mm. avant ñëwee ay autour des années 2006 7 8 ba 10 n'est-ce pas ñu ngi autour de presque. mais yan pathologie ñoo gën a fës léegi ba euh, donc ça veut dire que mortalité bi mu ngi wàññeeku te tamit am lu ñu changement épidémiologique mm avant nous ñi ñu doon faatu parce que dañu avons am ay infection ay paludisme ay tuberculose mm. wala ay problème biir buy daw mm. mais ministère bi fait na sensibilisation en termes de vaccination mm. en termes de prise en charge de la malnutrition ak palu ba léegi décès ñi am mooy prématuré prématuré mooy occupé presque gën a wàllu cadre décès ni ñuy am prématuré ak nouveau-né parce que ñoom dañu sensible dañu gaaw am infection maintenant en termes de décès aussi il y a aussi les infections respiratoires hmm. euh, en termes de décès aussi il y lu surtout des malformations. parce que malformation cardiaque cardiaques, xam nga ni malformation il faut opérer est-ce que le monde nañ ko détecter un peu avant peut-être. Euh, euh, pour éviter l'INI s'il faut arrêter la grossesse faut arrêter ko peut ça nécessite ku am malformation surtout malformation complexe il il sortir les opération yi nga n'est pas évident. maintenant aussi il ngi a des efforts en termes de prise en charge préhospitalière hmm. n'est-ce pas mooy maladie pour ñu mun leen conditionner. Hmm. faire waxtu wi daanaka waxtu waxtu wi daanaka jeex y aura à peu près 400 à 450 participants hmm. n'est-ce pas en même temps aussi dañuy avons ay thèmes yu am solo prise en charge des urgences mu nekk prise en charge pré hospitalière mu nekk prise en charge euh, crise d'asthme sévère mu nekk prise en hmm. charge euh, des détresses euh, nu des urgences des détresses respiratoires prise en charge également des des urgences néonatales hmm. donc c'est un congrès bi nga commencé na sax depuis démb am na pré congrès dañuy former nit ñi ci walu réanimation dañuy former nit ñi ci walu hmm. dialyse en même temps aussi dina am échange échange am solo par rapport à tous les participants jërëjëf professeur Idrissa Dembaba, Ba euh, ci seen congrès bi lañ doon waxtaane ak itam lu jëm ci wàllum euh, pédiatrie euh, auditeurs yi faral nañ la di dégg ci bonne santé ak ñoom aw mbay ak ñoom <laughs>